ce juge partial du huitième cabinet, non indépendant du procureur de la République et du gouvernement de Macky J'invite les Sénégalais par là même à prêter un œil attentif aux doyens des juges d'instruction, Samba Sall, pour toute participation éventuelle au traitement de ce dossier. Car c'est connu de tous, tous les coups foireux contre les opposants politiques aux citoyens au régime de Macky Sall passent par ce triangle des Bermudes judiciaires, Bassirou Gueye, Mamadou Seck tous les coups foireux contre les oppositions les opposants qu'il soit un opposant politique un opposant activiste un opposant de la société civile tous les coups foireux passent par ce triangle tout le monde le sait si Macky veut me liquider il va, il devra pour une fois accepter de se salir les mains au lieu de se cacher lâchement derrière ces barbouzes de la justice parce que tout le monde connaît son habitude il instrumentalise la justice et à chaque fois qu'il est interpellé il dit c'est un problème de la justice nous savons tous que c'est lui qui tire les ficelles et pour une fois s'il veut me liquider moi parce que comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux ni à un poltron s'il veut me liquider il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même mais je tiens à dire ici et maintenant que en dehors de quelques petits soucis rhumatismaux bénins, je ne souffre d'aucune maladie cardiaque, pulmonaire, rénale ou autre diabète. Je suis en excellente santé par la grâce de Dieu. En conséquence, Macky sera responsable personnellement de tout ce qui pourrait m'arriver, notamment en termes d'empoisonnement par quelques moyens sophistiqués. Je tiens l'opinion nationale et internationale à témoin. Et c'est très important. Chers compatriotes, je lance un appel à la nation sénégalaise, sans exclusive. Le moment que nous vivons est historique. Il est donc forcément très grave. Il est temps que chacun comprenne que Macky Sall est prêt à tout pour son obsession dynastique, y compris compromettre nos acquis les plus, notre acquis le plus fondamental, c'est-à-dire la cohésion sociale. Il nous est revenu des jeunes arrêtés que lors des interrogatoires, deux questions leur étaient posées. De quelle région êtes-vous? À quelle ethnie appartenez-vous? Ceci est particulièrement grave. C'est une violation flagrante de la Constitution sénégalaise. Chers compatriotes, refusons ce dessein funeste visant à instaurer le chaos pour justifier le recours à toutes sortes de méthodes de répression sur le peuple. Nous sommes tous, nous Sénégalais. Et simultanément, en chacun d'entre nous, on retrouve. Donc nous sommes tous simultanément Wolof, Séeréer, Alpulaar, Joola, Mandeng, Bassari, Mankagne, Bambara, Jaaxanke, Njaago, Pël et j'en passe. Nous sommes simplement une nation unie. Et je suis l'exemple achevé de ce métissage qui fait de nous tous un et un seul peuple. Cette affaire qu'ils ont voulu utiliser pour diviser les Sénégalais les a au contraire rapprochés. Comme ma propre et modeste personne, les fédère au-delà des ethnies, des régions, des religions, des tariqas, des âges et des sexes. Vous me permettrez, chers compatriotes, de consacrer quelques développements spécifiques à la Casamance que mes adversaires n'ont cessé d'utiliser anticonstitutionnellement, je le répète, mais qu'ils n'ont cessé d'utiliser comme une arme politique contre moi depuis mon intrusion dans la scène politique. Depuis six ans que je suis sur la scène politique, jamais on a autant entendu parler de l'appartenance régionale ou ethnique d'un leader politique au Sénégal. Comme si c'était un crime d'appartenir à la Casamance. Même si je revendique d'autres appartenances parce que je suis métissé, sénégalaisement métissé. La situation qui s'y déroule en Casamance, depuis presque 40 ans, nous meurtrit profondément. Mais je tiens à dire que la Casamance n'est ni Diola ni Sérère. J'ai à côté de moi docteur Cheikh Tidiane Dieye, qui est plus casamancé que moi, qui est né à Ziguinchor, qui a grandi à Ziguinchor, qui a étudié à Ziguinchor, dont les parents sont à Ziguinchor. Si vous voulez voir le melting, un vrai melting, allez en Casamance. Soyons clairs donc sur ce point. Comme j'ai eu à le dire dans mon ouvrage Solutions pour un Sénégal nouveau, et lors de mon meeting de Bignona, lors de la campagne présidentielle de 2019, nous sommes foncièrement, mais alors foncièrement contre toute idée d'indépendance et même d'autonomie d'une quelconque partie du territoire national. D'une quelconque partie du territoire national. Mieux encore, en tant que panafricains, nous ne croyons même pas à la viabilité de nos frères États volontairement balkanisé par le colon pour annihiler toute ambition de grandeur et de puissance de l'Afrique. Aucune fission n'est plus admissible. Nous devons au contraire tous œuvrer inlassablement à la construction de grandes fédérations continentales, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud et au centre, qui devront ensuite culminer vers la grande confédération africaine. Nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui ont pris les armes à Casamance, quelles les frustrations à la base. Mais ce sont nos frères et nos oncles et nos pères, et je ne le régnerai jamais. Ce sont des Sénégalais tout court, et il faut les réintégrer comme tels. Et c'est pourquoi la seule fois où moi j'ai admis, puisqu'après, de 2019 à maintenant, beaucoup d'émissaires sont venus me voir, prétendant être envoyés par Macky Sall pour voir comment on pourrait travailler ensemble. Je les ai toujours éconduits. Et un jour, un émissaire est venu un grand homme d'affaires que je ne citerai pas, et je lui ai dit, je ne travaillerai jamais avec Macky Sall. Je ne serai jamais dans un gouvernement avec Macky Mais je suis prêt à travailler sur une question. Le règlement définitif de la, de, définitif de la crise casamanceaise. Et je n'ai pas besoin de poste ou de salaire ou de véhicule. J'ai besoin juste, puisque c'est une question de sécurité intérieure, j'ai besoin juste d'une habilitation de l'État du Sénégal et je prendrai sur moi d'entreprendre des démarches pour une, un règlement définitif de cette question. Chers compatriotes, chacun et chacune d'entre nous doit prendre ses responsabilités en ces temps obscurs, car en vérité, ce qui se joue maintenant dépasse ma personne. D'aucuns se trompent même en pensant que c'est le dernier, c'est le dernier tournant vers le troisième mandat. Ce qui se joue c'est le projet monarcho-dynastique du clan Macky Sall. Le projet du mandat à vie par le truchement de réformes constitutionnelles à venir après la liquidation de tout opposant politique et de tout représentant de la société civile. C'est ça qui se joue exactement aujourd'hui. Je m'adresse donc prioritairement à toutes, toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais. C'est le résultat de plusieurs décennies, voire siècles de lutte et de conquête démocratique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 de la corruption, de la compromission des intérêts nationaux. Vous avez été les premiers à comprendre le changement structurel que nous proposions aux Sénégalais. Ce combat est le vôtre car jamais, jamais nous n'avons été si près du but. Jamais nous ne sommes, nous nous sommes, rapprochés, nous nous approchés si près de créer les conditions d'éviter à nos enfants de sillonner le monde à la recherche de ce qu'ils pouvaient bien trouver chez eux. D'où la panique de Macky et de tout le système qu'il représente. Frères et la diaspora, Nous ne gagnerons pas ce combat et tous les paris à venir sans vous. Je m'adresse au mouvement citoyen. Vous avez été de toutes les conquêtes démocratiques dans ce pays. Au même titre, sinon plus que les acteurs politiques. La pureté de votre engagement réside dans son désintérêt puisque vous n'êtes pas dans une logique de conquête et d'exercice du pouvoir. Je vous dis que votre mission ne s'est pas achevée le 23 juin. Il vient, elle vient justement de fois-ci, Il ne s'agit plus simplement de stopper un projet de loi contesté, il s'agit de forer les bases d'une refondation pour que plus jamais cela. Je m'adresse à l'opposition sénégalaise. Quelqu'un disait que la plus grande chance de Macky Sall, c'est son opposition. Je m'adresse à cette opposition, dont l'écrasante majorité, au-delà des clivages et divergences d'approche, semble avoir bien compris les enjeux transcendantaux du moment. Comme en atteste d'ailleurs ces innombrables manifestations de soutien et de solidarité depuis le début de ce complot. Tous ensemble, nous avons une opportunité qui ne se représentera certainement pas de sitôt de changer le rapport de force définitivement, de mettre un terme à l'arrogance et aux persécutions, de stopper le projet dynastique et de remettre les compteurs à zéro pour qu'à jamais les droits de chacun et de tous soient restaurés et respectés. Mais si Macky Sall son coup-ci, S'il réussit ce coup si alors il écrasera tout sur son chemin vers le pouvoir à vie. Que personne ne s'y trompe. Politique, mouvement citoyen, société civile, journalistes, journalistes indépendants, syndicalistes, activistes et même religieux, tout le monde y passera si Macky Sall réussit ce coup. À cette opposition, je dis que nous pouvons avoir des nous pouvons avoir idéologies et des projets différents. Nous pouvons même avoir des ambitions concurrentes, ce qui est tout à Mais à ce moment, et depuis 9 ans, nous avons le même intérêt à freiner la machine de Macky Sall. Je m'adresse aux femmes sénégalaises, à ces braves femmes sénégalaises. Vous vous êtes beaucoup battues, et nous tous avec vous, pour obtenir ces acquis contre les violences ignobles à vous faites. N'acceptez pas que ces nobles acquis, encore perfectibles, soient transformés en armes politiques. Cela décrédibilisera votre combat. Aux organisations de la société civile, je n'ai pas besoin de rappeler le rôle de vigie du respect des droits et libertés individuelles, les individuelles et collectives. Depuis le début de cette affaire, Macky Sall, son ministre de l'Intérieur et son procureur utilisent des méthodes dignes de la Gestapo pour procéder à toutes sortes de services physiques et psychologiques Des jeunes ont témoigné avoir été sauvagement torturés dans les locaux de la police judiciaire. Des kidnappings sont orchestrés tous les jours sur des citoyens et citoyennes sans préavis ni convocation. Des jeunes sont envoyés en instruction pour le plaisir vindicatif du procureur au seul crime d'avoir répondu à la provocation. L'objectif recherché n'a rien à voir avec la justice. Il s'agit plutôt de vengeance, de briser des vies et de briser un élan patriotique. illustration de la peur bleue que leur inspire la capacité de mobilisation d'un peuple sénégalais désormais conscient. Vous me permettrez d'adresser quelques mots aux parents de tout, tous nos otages politiques. Soyez assurés que nous souffrons à côté de vous. Nous souffrons beaucoup plus de, que vous de cette situation et nous compatissons à cette douleur. Je me permettrai de citer tous ces camarades actuellement injustement détenu par Macky Sall mis en sous mandat de dépôt à Dakar Mahmoud Ndoye Amadou Dé Mamadou Konté Cheikh Ahmed Bassirou Sané Abdoulaye Faye Sékou Ndour Pape Malick Seck Laba Touré Mor Niang Edouard Mohamed Thiam Wandou Cissé Noa Sambou Diomaye Diafat Omar Diouf Ousseynou Dia Pape Niang Mamadou Sarr Ousmane Diop Abdoulaye Diène 20 sur Dakar sur Ziguinchor Lamine Badji Bakary Richard Diémé Ousmane Bodian Atap Sonko Madikoy Sané Amadou Badji Ismaïla Badiane Ibi Kamara 8 et ceux qui ont été enlevés par la suite sous prétexte d'accusations fallacieuses dont l'administrateur général de notre parti monsieur Birame Souleye Diop le coordinateur de Pastef Dakar monsieur Abbas Fall notre frère et ami Guy Marius Sagna Assane Diouf Clédor Sène Aujourd'hui, nous avons 33 personnes illégalement, injustement retenues par Macky Sall, pensant pouvoir briser un mouvement parce qu'ils considèrent que c'est des têtes du mouvement. Mais il n'a rien compris par rapport à ce que ce qui fait euh, fonctionner un mouvement populaire. Parmi ceux qui ont été retenus se trouvent des étudiants qui devaient subir un examen pédagogique dont ils ont été définitivement privés. des enseignants qui sont seuls titulaires dans leur matière, dans leur localité, avec plus de élèves qui aujourd'hui, par exemple, dans la commune de Bonna, sont privés d'un professeur d'espagnol. Des hauts fonctionnaires. Il y a même en, parmi, il y eu même parmi eux deux mineurs dans le lot des arrestations de Ziguinchor. Il y a enfin tous ces citoyens, connus ou anonymes, victimes d'enlèvement, de séquestration, de violences policières, de violences physiques, de traitements inhumains et dégradants et même de Je compatis particulièrement au cas du jeune Boubacar Ba, à peine âgé de 16 ans, le bras amputé suite à une blessure lors des manifestations de Bignona. Je compatis au cas du frère Ousmane Diop Vito de Pastef Sindia, qui a subi une intervention chirurgicale pour extraire une balle logée dans, la, dans le crâne après un tir à bout portant d'un agent de police. Nous mettons Macky en garde Prenons garde que cette escalade de la violence d'État ne mène à des crimes contre l'humanité. Et l'histoire jugera. Tous ces agissements écroués, simplement arrêtés, puis relâchés, quelquefois torturés, pendant que les enfants de Macky Sall et de son clan déambulent entre Dubaï, Paris, New York et se déplacent dans Dakar en bolide de luxe. D'ores et déjà, nous exigeons de Macky Sall la libération inconditionnelle et immédiate de ses otages. J'ai enfin une pensée pour Madame Koulibaly, Ndeye Khady Diagne et sa famille. Cette pauvre victime collatérale, objet de menaces quotidiennes et sans aucune protection. Un journaliste me rapporte que pas plus tard qu'hier soir, son mari sorti acheter du lait a essuyé des jets de pierre lui ayant, causé une blessure ouverte à la tête. Je rappelle à Macky Sall que les gens ne supportent pas le sentiment d'injustice. La pauvreté, le froid, la faim même sont plus supportables que l'injustice. que l'injustice appelle l'injustice. Mais au peuple sénégalais, parce que c'est important, nous ne devons plus être un peuple spectateur et observateur, restant dans les salons à commenter. Au peuple sénégalais, je dis ceci. Le sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. Ma conviction, c'est que 99% des peuples sont conscients de l'injustice quotidienne du, du régime Macky Sall, de la dictature même qui est en train d'être Sénégal. Mais je dis à ce peuple-là, il ne suffit pas d'en éprouver le sentiment, puisque le simple sentiment d'injustice ne suffit pas pour vaincre l'injustice. À notre gendarmerie nationale, votre devise est l'honneur et patrie. Votre devise est honneur est patrie. Telle a été votre attitude exemplaire dans la conduite impartiale de cette enquête, malgré les pressions énormes des comploteurs. C'est cette gendarmerie-là, éminente institution de notre République, que nous aimons, nous Sénégalais. que le peuple réclame, que le peuple admire et respecte. Vous êtes, vous, de la gendarmerie, les garants impartiaux de notre sécurité à tous, pas seulement de la sécurité de Macky Sall, pas seulement la sécurité de son, de son clan, mais vous êtes les garants impartiaux de notre sécurité à tous. À la police nationale, je dis que vous êtes des citoyens comme tous. Nous vous savons très majoritairement patriotes. Faites votre travail, certes, mais éviter de verser dans toute violence et excès de zèle répressif. Chers compatriotes, je vous appelle enfin à faire bloc et à vous dresser contre ce projet d'effacement de notre démocratie. Parce que ce qui passe, ce qui se passe n'est rien d'autre qu'un projet d'effacement de notre démocratie. Sachez qu'à chaque fois qu'une dictature a pu s'installer et prospérer, c'est parce qu'une écrasante majorité du peuple a abdiqué face à une infime minorité qui a su jouer sur leur Mais rappelez-vous que rien ne résiste à la volonté et au courage d'un peuple. Ce qui se passe partout dans le monde et édifiant. Rien, absolument rien, ne résiste au courage et à la volonté d'un peuple. Et le courage, chers compatriotes, comme disait Mandela, c'est pas l'absence de peur, mais le courage, c'est la capacité à la vaincre. Euh, travaillons à vaincre nos peurs pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. debout contre l'arbitraire ensemble nous vaincrons je vous remercie résistance résistance mbokk yi maa ngi tënk lima wax ci nasaraan ñu koy tënk ci olof kàllaama olof di jéggalu ci tardé bi ñu am ñun parce que dañoo ne woon euh, takkusaan mooy 17h dañuy door waxtaan wi yéen ñëpp yéen a ngi toog parce que bëri nañuy def direct doon xaar may wax sénégalais yi di leen gaaral ni dañoo amoon lu ñu gàllankoor tuuti ndax tey bi ñu toogee ba booru midi ñii nga xam ne ñooy saytu suñu kaaraange dañoo gisoon ni am na benn woto boo xam ne te lépp nag filmé nañ ko heureusement ñaari fan a ngi nii. mu taxaw sama wetu kër léeg-léeg ñaar ñi ci nekk ñi ci nekk génn bu ñu ñëwee taxaw di filmer sama kër di jël ay photo ba tey mu am ñenn ci sama waa karange ñu jàppanteeg ñoom parce que loolu noonu dafa garaaw parce que loolu violation de domicile la violation de la vie privée la te constaté nañ ko te dinañ déposer plainte bañ leen ca gisee la ñu dem araftu leen mu am xëccoo seen diggante ñu ñëw wax ma ko daanaka biñ ma ko waxee dama leen ne dem leen ngeen jàppal ma leen parce que Macky Sall xoqatal gi muy xoqatal dafa war a xam ni ñun loolu yëngaluñu man Macky Sall mënumaa tiital yor na police yal na gendarme yor lu mu neex lu ko neex waaye mënumaa tiital su doon su doon moom ak man rek ñoo ci des bët ak bët moom ak man rek bët ak bët wala APR ak Pastef rek bët ak bët. léegi ñu gis ñu ñu ñu ñu ñuy ñokkali kon ñu jënk la réew jox la ay jumtuwaay yoo xam ne ñépp a ci yem nga koy utiliser yow pour di topp ay ay ay adversaire politique loolu tardement la wala deltu gannaaw la ci Sénégal te loolu Macky Sall la ko def bi xëccoo bi amee ñu am lu ñu bàyyi ñoom sax ca bañuy daw waaye bi ñu ubbee gannaaw oto bi nañu xam ne ñun Sénégal ñun ñëpp kenn nekkatul en sécurité ndax ñoom yor nañu ay jumtukaay yoo xam ne dañ koy ñëw taxawal fii boo duggee sa sa biir euh, sa biir euh, wanag di di def sa soxla sax ñoo ngi dégg li ngay def loolu rek lu baax la cim réew waaye waroon nañ ko yóbbu nu ñuy def ba terroristes yi du ñu dugg senegal nu ñuy def ba euh, samba boy yi ñu dogaale nit ñi di di di foqati seen alal waaye jël un adversaire politique dem teg loolu di déglu lé lépp lu nekk ci biir këram di photo di filme loolu mooy Macky Sall bi xëccoo bi amee nag. ñoom ñu daw ba ñuy daw am na yu ñu fa bàyyi du ma ci dugg loolu nag la police ne tey tembe il faut ñu delloo leen ko wala ñu am nu ñu jëflanteeg ñun identifié nañu ñeent ci sama waa sécurité ba defe naa Jibi ngay Ndiaye mi ci la bokk sama protocole ne ñoom la ñu fas yéene jàpp parce que ñooñu ñoo jël loolu loolu lu garaaw la ci réew mi te dinañu déposer plainte waaye dinañu saisir les organisations de défense des droits de l'homme ndax it man duma ma Samba Boy du ma sàcckat du ma terroriste te du ma n'importe qui ci réew mi nag waxuma ko pour rëy rëylu waaye su ma doon n'importe qui caméra yi yëpp duñu fi taxaw tey te saa su ma wootee nii lay mel ki Sall dafa ma war a respecté ma respecté ko su ma respecté wul du ko respecté. ak ak poste bu ñu ko munti jox. man nit danga may respecté ma respecté la kon bi loolu weesoo ñu war a génn ñëw conférence de presse bi ñu téye suñu convoi du ñu génn. parce que tant que delaw ñu leen mbir moomu mbir ma nag la ne ci biir ba tax ñu tiit du lu tuuti de xam na waru doon lu tuuti kon fii la suñu démocratie toll il faut ñëpp xam ko terrorisme d'État moo fi nekk te Macky Sall moo ko jiite bu ñu leeralee loolu nag ba wax ba ba ñëpp xam lu tax ñu tàrdi may wax suñu mbokk yi ni réew mi fukki fan ak juróom a ngi nii ci tey ab wax lëmbe réew mi yéen ñëpp xam ngeen wax ji jarul may dugg ci détails yi muy loo xam ne nag lu war a tiis la ci ñun ñëpp ndax jamono joo xam ne àdduna bi yëpp a ngi am njàqare ci li nga xam ne mooy li dal àdduna ba tey kenn mënatul tukki kenn mënatul euh, liggéey normalement kenn sañatul génn guddi loolu mu waroon doon lu ñëpp tal tey sénégalais yi boole kook yeneen ak yeneen yoo xam ne sénégalais yi jaax na lañ ci sénégalais yi ju ba suur sénégalais yi amuñu liggéey sénégalais yi fajuwuñu ñu waroon tal leneen moom Macky Sall ñu teg ko ci bopp réew pour mu saafara loolu amul lu muy tal moom du di def ay complot ci naka laay def ba fexeel sama adversaire politique loolu gàcce la tey àdduna yépp a ngi ñu tiim di reetaan Afrique yépp a ngi ñu tiim te dara waralu ko lu dul Macky Sall mi ñu dénk lii nag ñun ñëpp daf ñoo war a delloo ci ñu xoolaat suñu bopp mbokki Sénégal yàgg naa ko wax réew du caaxaan a koy defar réew mu la raw rekk daf laa ëpp parlu gën laa gëm boppam gën laa gëm réewam waaye gën laa mën a say sàmmanteeg ay charte yoo xam ne waa réew mi ko teg ñëpp yem ci yooyu nag amoon nañ fi ay occasion yu bëree bëri bari pour li dañ fi parce que lu tel ni état lu toll ni état amul lu muy def lu dul naka laay def pour dajale ay mbir di compléter pour pour pour pour faagaagal ab nit ça dire que amuñu état état bi ñu am propriété ab nit la ak clam ku bokkul ak ñoom wala ku ne ànduma ak ñoom bokkoo ci réew mi occasion yi nag ñu amoon nga xam ne lu mel ni assise national defoon na ci liggéey CNRI euh, CNRI yi nga xam ne defoon na ci liggéey ak yooyu ñun ñëpp dañoo war a xam ni yooyu ñu rate moo ñuy moo ñuy moo ñuy topp ba tey jii ba tax nag di ngeen ma may ma gërëm sénégalais yëpp parce que mbir mi bi mu amee bi mu ne kët ne jonn sénégalais yëpp en tout cas li ëpp Sénégal ne lii gëmuñu ko laata sax man may gën di wax ci dimanche boobu li ëpp ci dañ naan dañu ne lii ñun gëmuñu ko loolu ñu ngi ciy sant yàlla parce que kóolute la te kóolute googu duñ ko mus a wor ni ma leen ko waxee di ko wax tout le ñun sénégalais duñ ñu gën a gore parce que mënoon na daal keneen. ñëpp dañ naan bett moom mais bi ñu nee soo Sonko siif na li ëpp ci sénégalais dañ ne lii gëmuñu ko laata sax may génn man pour wax sama wax ñu ngi leen di gërëm ci loola di gërëm ñi nga xam ne leen di bële le huit ñëw nañu doog man ci kër ga ku mel ni Cheikh Tidiane Dièye yi si la bokk mëq ak ñun grenade lacrymogène yi fekke duma yi fekke bal yi lépp ñu bokk ak ñoom ñu bëri woon nañu ay leader politique ñoom Thierno bokkuma keneen ak keneen su ma leen suma limee rek juum ñoo xam ne ñoo ko bokk ci bés boobu ñu ngi leen di gërëm di gërëm suñu partenaires yi nag parce que bi mbir mi amee ba léegi kenn noppalatul su ma nee lim damay juum fii suñu coalition fi nekk waaye am na ñoo xam ne bokkuñ sax coalition waaye liñ ci daj ku mel ni docteur Babacar Diop bi defe naa bi mbir mi ne kët ne joon moo njëkk a àddu ci politique yépp euh, euh, euh, ci ma gisoon ko ci site internet yi. ñooñu ñëpp ñoom mortala ñiy toog fii nit dof kenn ak keneen nelawatuñu lekkatuñu ñooñu ñëpp parce que ku ma ku déggul turam rek bu ma ko jàppee waaye xam naa leen ñu ngi leen di gis ñun ñëpp ñoom Dame Mbodj damay tooñ keroog benn waaye ne ko man léegi Ousmane Sonko Mbodj laa tudd ndax Dame Mbodj ak Aïda Mbodj lañ ca daj ak la ca def te defuñu ko pour intérêt bu ñu bu ñuy ut si man ñenn ñi sax miinantewuñu daam Mbodj defe naa benn yoon la ñu mës a gisee. ñooñu ñëpp lañ ca daj ñu leen koy ñu leen ciy gërëm di gërëm waaye di gën a soññ ndawu Sénégal ndax keroog ndaw ji dafa am lu ñu wone lu ñu firndeel mooy naxe bi jeex na te ñoom dégg nañu suñu discours xam nañ luy suñu mbëbët ak suñu yéene ci réew mi ba tax ñu jaral leen liñ leen jaral ñun loolu la ñu wone keroog. te dañu dafa am lu tubaab naan un mythe est tombé mooy ndaw ñi wane nañ ñi li ñu doon wax ni sénégalais gëmul dara benn sénégalais parewul pour xeex loolu ndaw ñi ware keroog may wax ndaw ñooñu di ñu gën a gore suñu bakkan bii lañu teg ci projet bii nga xam ne moom lañu bokk ngir définitivement nooteel ak nii ñu yore Sénégal nga xam ne lottal na sénégalais jóge fi may gërëm tamit Euh, gannaaw ñooñu ñii nga xam ne ñooy samay avocat ndax soobu nañ ci dossier bi te caaxaanuñu si waaye sonn nañu trop ci ñii suñu ndaw yi nga xam ne moom lañu jàpp ñu dem di leen topp assisté moo xam dig moo xam feneen di fa yenn suba ngoon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax di gërëm kilifa diine réew mi bi mbir mi amee léegi li ma jot ci ay woote ak ay délégation yu kilifa diine yónnee kilifa diine yépp nag laa wax ak ñaan yi ma yónnee yóbbante ma ko kenn xamul nu mu toll loolu feesal na sama xol trop trop trop trop trop trop di leen ci gërëm di wax nag ni bu ngeen gisee ni ñëwuma pour dugal leen ci mbir mi ñëwuma si sàkku sàkku ci yéen pour ngeen àddu ci dafa fekk dama xam ni ki ma ko sékkal saa su xasee ba yëkkati lu mel nii mooy nu muy def ba fàggaagal ab adversaire am ci politique séddu ci kenn naw ci kenn ormalu ci ormalu ci kenn te li fi xewoon xewaat fi xam am na fi ndax gis nañ fay ñoo xam ne généraux woon nañ ko ñaan ko mu lànk ne du ko def ñun nag orma googu ñu leen ñu am ci yéen bëgg orma googu ñu bañ koo xotti moo tax ñëwuñu leen ne leen wax leen ci parce que lii bu xasee ba am moom soo xasee ba dëgmal lu mel nii lenn rek ko mën a arrêté mooy askan wi ci boppam ne nag doy na lii mënatul wéy askan woowu bu jógee taxaw moom dina dellu gannaaw maa ngi it gërëm ñi nga xam ne ñoom laa bokkal assemblée nationale te ñu bokk ci kujje politique bi muy groupe démocratie et liberté nga xam ne moo boole PDS ak euh, ñoom Mamadou Lamine jàll tekkeeg bokk gis ak parti yooyu yëpp. wala muy ñi nga xam ne ñooy les non seen taxawaay bi mbir mi taxaw amee ba léegi rafet na ñu ngi leen ciy gërëm di leen ci sant waaye di jagleel ngërëm xaasatan di ko jagleel sama avocat man muy madame Aïda Mbodj di ko jagleel ki nga xam ne moo waroon toogal Euh, groupe démocratie liberté ci ñoom ñaar la woon moom muy benn bi muy Moustapha Guirassy waaye di ko jagleel sama sëriñ sama xarit nga xam ne mu waroon toogal leen non inscrit di Cheikh Bamba Dièye ñett ñi li tax ma jagleel leen ko mooy ñoom seen taxawaay soo seetee week bi yépp ñu dem ci média yépp nag bàyyiwuñu benn seen taxawaay boobu ñu am ci média yi dafa ubbi bëtu sénégalais yi bu baax a baax a baax ba ñu gën a xam li ne ci biir bu ndax bokkuñu parti bokkuñu woon sax coalition ci élection présidentielle bi waaye dëgg rek moo tax ñu jóg di gërëm it Cheikh Abdou Bara Dolli nga xam ne bi mbir mi di jolli moom da ko fekkoon bitim réew waaye bi mu nee cëpp Sénégal dimanche bi passé defe naa bi mu wàcc aéroport la commencé def ay interview kon ñu leen di gërëm ñooñu ñëpp waaye di gërëm mboolem seen député opposition bi mbokk yi mbokki Sénégal donte moom Macky Sall ay moyens yu bëree bëree bëri bëri la jël ut ay nit yu koy waxal ñu wasaare ko ci presse bi lu ne ñu koy bind lu ñu koy wax waaye gis nañ ni mbébétam dafa nax saay bu ñëwee ba cappandaw cappandaw bi tey sénégalais boo jël gëm ni am na benn sénégalais boo xam ne gëm na ñoom li ñu li ñuy wax nag am na waaye li gën a neex mooy sénégalais boo waxal mu ne ñun xam nañ ñi lii complot la. te ñoom ba ñuy sumb seen lii ku leen ne woon nii lay demee defe naa duñ ci dugg parce que dañ koo togga togga togga togg ba xam ne bàyyiwuñu dara may xamal sénégalais ni couvre-feu ak état d'urgence bi ñu décrété sax euh, euh, feebar bi taxul ñu décrété ko seen plan la ñu toggoon ba teg bu ko pour que pour que suñ ko defee benn senegal du mun a yëngatu ku yëngatu ñu ne la état d'urgence wala couvre fa jàpp la ndel yi ngeen di dégg ñu koy sànni fenn ci réew mi nga xam ne gëjoon nañ fa dégg bombardement wala dara ñu jékki-jékki rek ndel yi takarnaase lépp lii moo ko waraloon pour mën a fexe ba foofu ku yëngatu ñu ne la sécurité nationale wala euh, nu mu tudd euh, euh, sécurité nationale wala wala état d'urgence lii lépp nag lii lépp Macky Sall ak état dajale ko jubluwuñ si lu dul nu ñuy nu ñuy nu ñuy faagagalee benn adversaire man de xamoo ni am naa dayo boobu ci senegal lii lépp nga dajale ko def sa complot mobiliser moyens yëpp pour faagagal benn adversaire rek ndax adversaire adversaire boobu wër nga fu ne pour am fu ñu jàppe bi ñeen fu ñu ko mën a jàppee ni mës naa jël ci xaalisu réew mi ba may nekk ci biir di liggéey mës naa jël dërëm gu mu moomul ci xaalisu réew mi wala mus naa jël ay terrain yu moomul wala mus naa fu ne nga wër ko amoo ko nga nekkoon naa génn ci loolu dem ut ci vie privée fu ma koy jaare pour faagaagagal ko lii dafa ñaaw ci senegal dafa ñaaw ci afrig ndax waroon dépassé lii may wax nag Macky Sall moom ci boppam ak ñi mu àndal nekkoon léegi de seeni pexe xam nañ ko te fi ngeen ñu woo mën nañ leen fi fekk te jël nañu suñuy matuwaay bu dee lii rek moo des ci pexe nañu xam ni dinañ leen ci fekk te jël nañ suñu matuwaay duma sori nag ndax wax bu yegg boroom xel moomu ko kon mbokk yi duma sori ci démontrer lan mooy complot bi Sénégal yëpp xam nañ ko ndax boo defee li nga def ba pare dem woo gendarmerie jox ko ne defal enquête gendarmerie def enquête génne ci lii may wax nii PV gendarmerie loolu rek moo ci nekk. bu njëkk gendarmerie dafa ne lii ñu wax siif mënul am fii li ko firndeel mooy ñetti seede yi fa yi fa seede yëpp nañu lii mënu fee am mënu fee am dégguñu ko gisuñu ko waa seede lu muy jëriñ ñu xoqatal seede yi ba tey ji ñu ngi leen di ñoo ñu ne leen du ngeen ñu wax loolu ñu warut a wax du gendarmerie moo leen xoqatal de waaye procureur mi doon woote di joxe ay ordre parce que gendarmerie day appliquer ordre li procureur ci boppam moo leen doon xoqatal rek pour ñu changer seen version ñu ne defuñu ko gon nga andi ay seede seede yi ne lii amu fi loolu rek doyoon na nga yenu ndaw si yóbbu hôpital ñu génne PV médical ne la lii amu fi pokk jeexoon na ci wax nga ne loolu doyul faw rek ma continuer parce que kii su ma rëccee ci bii fiir naa ko su rëccee ci fiir bi dootuma ko mës a fiir ci àdduna moo tax sénégalais yi nañu xam ni mag yi du dellu gannaaw seen programme yëpp dinaa leen ko wax fi mu toll nii PV boobu lan moo ci nekkati mooy gannaaw bu mu nee lii amul dafa jël ngàcce gaalaama gendarmerie dafa jël jotam di wone kii nga xam ne moo ne dañ koo siif li mu wax yépp te bañ ko buñ ko bu ñu demee vérifier ko amul moto ma jël si ñu xool oto ko jël si envoyé na ma SMS ñu xool SMS amul ana SMS effacé naa ñu def requision ab arabe ab benn arabe moo envoyé SMS sama baay porté na plainte Ousmane ko ñu vérifié plainte musul am suñ ko doon génnee war naa feesal ab page wala ñaari page loolu wane ni kooku amul crédibilité bu ñu ko war a mën a dégloo parce que su benn fen rek amoon décrédibilité ko waxuma laa nag lu ëpp 30 fen ci benn wax. waaye li gën a neex ci mbir mooy PV gendarmerie bi yemul foofu mbokk yi PV vendre bi dafa euh, gendarmerie bi dafa dem ba wane ni lii ab complot la ndax bi ñu demee ba ne ndaw si ku la jël si bi mu demee ba xam ni sës na mu ne xaw ma naka Ahmed Mbaye ñu woo kooku ne ko yow noo def ba jël si ko mu ne dama woo sama benn xaritu avocat xaritu awokaa bi woo euh, médecin ñu ñëw jël si ma ma dem jëli ko ñu ne ko yow ndax da ngay def politique mu ne dee def ma politique waaye sama nijaay wala sama baay day def politique benn bokk yaakaar la bokk waaye xale yi gaaw nañu génne photo yi yor t-shirt benn bokk yaakaar nekk ci meeting loolu su dul def politique lan mooy politique ci senegal da gis nga am réew bu normal boo jëlee koo xam ne dem nañ ba jàpp ni c'est l'un de principaux opposants ci ñu gën a jàmmaloo ak nguur gi la ñu naan dañ koy tuumal dañ koy dañ koy utal dara ci biir enquête bi ñu génne ci turu parti Macky Sall rek loolu dafa waroon jeexal mbir mi waaye sax dafa waroon ubbi beneen dossier mooy dossier complot bi contre ñoom mooy li amoon Amérique ci dossier bi ngeen dégg wet wote génn nga xam ne président Richard Nixon ci boobu lañ ko wàccee kon di lépp su dajee ci dossier complot bi leneen firndeel ko ndax yéen ñëpp dégg ngeen ab message boo xam ne ab avocat buñ ci tudd te ma wax leen ni loola ngi waaj a tas baro bi fi mu toll nii sànq rek réunion am na yoo xam ne ci yooyu la avocat buñ ci tudd ne moom moo bind bind na bindul man xaw ma te ñëpp xam ni avocat boobu dafa jege torop kii di ministre de l'intérieur tey nga xam ne moo nekk ci complot bi ba ci baat bi loolu rek a taxoon sax ñu fal ko foofu mu nekk noonu ndax ñëpp xam nañ ni moom mooy lom des sales missions Sale mission CREI pour liquider Karim sale mission agence judiciaire de l'État pour liquider Karim euh, Khalifa ñu ne ko léegi demal ministère de l'intérieur pour liquider Sonko ku ma xam la nag ndax xombal la dëkk sama yaay di waa xombal ñu bokk benn quartier àndin et c'est déplorable c'est déplorable que mbirum àdduna poñetu àdduna mun a yóbbee nit fii kon su ñu nee kooku jege na ko noonu ba ñu ñaan soxnaam laaj ko soxnaam moom mu mën a jël daal di bind daal di transférer ab message transférer ko kenn ci samay avocat te li andi transfert bi mooy bi ñu tuddee turam rek dafa woo sama avocat ne ko ah am naa problème waruñu woon tudd sama tur ci lii rawatina sama vie privée nangam nangam bi mu raccroché léeg-léeg xam nga dernier numéro bi nga woo booy gaawtu mun nga mun nga jum yónnee ko kooko moo tax message bi egsi foofa seeni pexe dañoo xamul luy yàlla Macky Sall defe naa dafa gëmul yàlla moom ci boppam waaye message boobu ma ma faram ko ci wolof lam ci bind mooy ci mbir mii ci coow li am dinaa ci joxe benn conseil lañu bind ci message bi mu transféré moom bu dee moom bind koy jot na ko parce que dafa bokk ci cercle bi doon ko transféré keneen ku bokk ci cercle bi parce que ku bokkul ci cercle bi duñu la envoyé message bi <laughs> ku bokkul ci cercle comploteur bi doo jot message bi waaye li mu ci wax dafa ne maa ngi leen di jox benn benn dig benn tegtal ci dossier bii nga xam ne dossier DSK la may wax suñu mbokk yi ni DSK mooy Dominique Strauss-Kahn nekkoon benn kilifa France boo xam ne dafa waroon nekk candidat ci élection présidentielle far mu am lu ko dab ba ñu jiiñ ko ni dafa siif benn nit fële New York coow mujj ci am ba mu mu mënu nekk mënatul mën na nekk candidat kon ñoom lii lépp nag buñ ci tuddee DSK rek moo liñ ci jublu mooy nu ñuy def ba Ousmane Sonko du nekk candidat loolu rek la mu ne donc ci dossier bi li ma leen di dict li ma leen di digal yéen mooy bu leen ko tëj kaso ndax bu ngeen ko tëjee kaso dina yëngal réew mi nit ñi dinañ génn di manifester fii ak waa bitim réew pour ñu bàyyi ko mu génn mu ne donc li ma leen di dé li ma leen di sant man mooy bu ñu jë bu ñu yëkkatee malaanu kiiraayam mooy immunité parlementaire bi na ko juge d'instruction convoqué mu ñëw mu déglu ko bàyyi ko mu ñibbi convoqué ko mu ñëw bàyyiwaat ko mujj bi ba keroog instruction bi jeex ñu ñu dem procès bu ñu demee procès nag fexe leen ba fësal ni jote am na moom ak xale bu jigéen bi loolu rek doy na jarul ngeen koy tëj bu ko defee euh, euh, maqaamam biir Sénégal day day day day day day day day day day wadd deram day yàqu loolu moo nekk ci message bi lii rek fi ndee na complot leneen loo ci yokk day ëpp moo tax bi ñu demee nag ba rapport bi dem jëm côté boobu ci la procureur tiit ne waa gendarmerie arrêté leen enquête bi parce que bëgguloon gendarmerie woo médecin bi bëgguloon gendarmerie woo avocat bi bëgguloon gendarmerie woo euh, euh, nijaay ga sax wala papa jëm loolu moo tax ñu yi may wax nag ni dama ko fàtte woon ci français ku mën a gis Macky Sall na nga ko laaj ndax xam na Adji Sarr am déet. Macky Sall ku ko gis na ko laaj ndax xam na aji Sarr am déet ndax mos naa giseek moom am déet ndax wax naa moom am déet mooy président senegal Sénégal may leeral nag benn mbir bu am solo benn mbir bu am solo mbir moomu mooy sénégalais yépp mën nañu après wax ni Ousmane Sonko moo ne woon keroog bu ñu yëkkatee sama mbalaandu kiiraay muy sama immunité keroog googu laay dem uyu ji buñ ma wooyee ma wax ni dama ne woon bu dee jaar nañu ci yoon bi nga xam ne moom la constitution teg moom la règlement intérieur de l'Assemblée nationale nga xam ne loi organique teg saa suñu jaaree foofu respecté ko bu ñu yëkkatee sama mbalaandu kiiraay ma dem fa may wax Sénégal yi nag dañoo respecté wul loolu te loolu man wax naa ko avocat yi wax nañ ko professeur de droit yi wax nañ ko même organisation de société civile yi def nañu ñoom seen benn communiqué muy Amnesty muy RADDHO muy keneen ak keneen ne dañoo respecté wul àq ak yelleef Ousmane sonk en tant que député ci ni ñu ko defee. wax naa léegi ci français faram naa ko jarul ma ci duggaat waaye nañ ko defee dafa respecté wul charte yi moo tax ma ne tey ak lu mun a am suba assemblée nationale man mi sama immunité da jógewu fi. conséquence nag bi ñu ciy tiire mooy fa ñu nekkoon suñu diggante section de recherche fa ñu nekkaat ba tey lii nag mbokk yi lenn rek moo ko tax a jóg lii lépp nag ma tudd kenn mooy responsable bi mooy Macky sal lan moo ko tax a jóg dama bëgg sénégalais comprendre ko te loolu duñ ko ko nangul mukk nag parce que jeunesse bi yépp am yaakaar ci li ñuy def mag ñi am yaakaar ci li ñuy def jigéen ñi am raakaar si li ñuy def ñëpp yaakaar ni projet bi mën na suqali senegal du ñu may Macky sal mukk mu utiliser ak yu bo yu caaxaan yi pour ne tey dina dakkal projet bi donte sax bu téye woon Ousmane Sonko du tax projet bi dakk loolu tam ma wax ko parce que projet bi du Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko am na lu mu représenté ci projet bi moo tax ñun ñu ko bokk ñëpp duñ ko nangul loolu may wax ni lenn rek moo tax a jóg Macky sal mooy. nu mu mën a gaawantoo pour juge bi inculper ma mooy mu ne man maa def li ñu wax te du ko teg fenn nag ñu gaawantu def mandat de mooy ñu ñëw téye ma yóbbu ma ba rëbës loolu bu ñu ko xasee ba am dañuy ubbi instruction instruction mooy juge bi day jël temps pour seet ndax lii am na walla amul di dajale pièces yi comme nag ci domaine bii. dañu ne ci wàll wii su dee dañu wax siif juge bi mun na jël temps bu ko neex su ko neexee mu jël 10 ans pour def instruction loolu bu ñu ko xasee ba am ma répété ko seen bëbët yëpp mooy ci lu gaaw gaaw gaaw fii ak fan yi di ñëw wala fii ak heure yi di ñëw nu ñuy def ba ne coppet jàpp Ousmane Sonko yóbbu rëbës loolu buñ ko xasee ba def fa lañ lay bàyyi 3 ans 5 ans 10 fexe ba génne la ci fichier électoral bi ni ñu defoon Khalifa def ko Karim bu ko defee Macky Sall dak ne mën naa am lu ma neex mun naa déroulé lu ma neexee et cetera et loolu laa wax ni ñun dañ ko ko nangul loolu rek moo indi lii lépp ngeen gis moo tax ma ne man mi Ousmane Sonko li ma waxoon ci sama génn bu njëkk bi mooy Macky xamul droit Macky xamul yoon Macky Sall bu xasee ba yëkkati projet ne tey ma faagaagal Yacine Fall. fii rek askan wi taxawul ne ko lii d'accord uñ si Macky Sall kenn mënu koo tere mu def ko moo tax ma ne man dinaa taxaw jàmmarloo ak moom dinaa taxaw résister parce que loolu constitution moo ma ko may seen menaces yëpp ñuy wax appel à insurrection xaw ma lan man maa ne man Ousmane Sonko ci sama bopp dinaa taxaw résister ci lii ñu bëgg a def ak nu ma ko mënee waaye daa ko résister mën nañ ma ëpp doole parce que ñoo yor nguur waaye du yomb ci moom de résistance boobu niñ koy defee ni ma koy defee man kenn ku ne ci sénégalais bàyyi naa la yow nga natt sa bopp mais man ni ma koy defee mooy benn la ñu war a def suba tekkiwul sama mbalaanu kiiraay ma wax ko ñépp mu leer sama immunité laa yor encore ñaareel bi mooy kii ñuy wax Mamadou Seck nga xam ne am na fu ko gaa yi téye ba moomul boppam même suñu dellu siwaatoon toppaat yoon ba ba ba ba mu jaar ni mu war a jaare ñu lever sama immunité nee naa moom mënul nekk juge d'instruction bi parce que li mu jot a def wane na ni mandute amul ci moom juge bu amul mandute nag matul juge ma wax ni ñoo ngi bàyyi bët ak xel ki ñuy wax Samba Sall ñu koy wax doyen des juges ndax dossier bu ñu mus a fii contre opposant moo xam membre société civile la wala membre mouvement citoyen wala activiste wala acteur politique ñett ñii ñoo koy monté ñoom ñooy taalibe Macky Sall ci palais de justice bi mooy Serigne basiru géey procureur mooy Samba Sall doyen des juges mooy Mamadou Seck ñooñu nee naa du ñu d'accord ngi ñooñu jël ko te samay avocat bind nañ ba pare déposé ko foofu ne récusé nañu parce que loolu yoon a ko moom yoon ko maye mooy soo gisee ku la doyul mun nga ne kii bu bëgguma mu àtte ma comme nag dix cabinet la soo récusé ñaar am ni huit cabinet yu des may wax nag ni Macky Sall dafa aadawoo saa su jógee pour faagaagal ab ab adversaire politique dafay làqatu ci gannaaw ay nit ndax moom ci boppam ñemewul góor dangay ngay ñeme li ngay def mais buqat la boo xam ne day làqatu ci gannaaw ay nit boo waxee ñu ne la justice bu ko kilifa woowee mu ne ko mbirum justice la bu demee RFI ne mbirum justice la comme du wax ak waa fii waa RFI lay waxal dama ko wax ni bii pa bu dee dafa bëgg a faagaagal Ousmane Sonko il faut mu li muy na li muy rendi na na na nangu ni moom deret bi dina taq ci moom loolu laa ko wax muy làqatu ci gannaaw ay magistrat il faut mu xam ni loolu dina dina dina taq ci moom waaye nag may wax Sénégalais yépp nii man de. maa ngi sant yàlla bu dee am na ay jafe-jafe yu ndaw ci li taxoon may dàmp sama yaram loolu reyul nit maa ngi wér gu yaram gu mat sëkk kanseeru ma ah ci ci lu ma yëgul <laughs> jabetu ma aw ma insuffisance rénale benn xeetu jàngoro maa ngi nii alhamdulilah lépp lu mën a am nag gannaaw bu ñu defee seen force nañu xam ni Macky Sall la. ndax am nañu seeni xeetu yu ñuy utiliser pour posséder nit wala am yeneen yu ñu koy def ba faagagal ko ñëpp xam nañ ko lépp lu mun a am moom Macky Sall la moo ko senegalee mu leer mbokki Sénégal maa ngi woo askan wi yëpp bàyyiwuma kenn jamono ji ñu nekk kenn ku nekk ci ñun war na xam ni jamono ju lëndëm la ci senegal waroon na doon jamono ju leer ci Sénégal waaye jamono ju lëndëm la ci Sénégal waaye nañu xam ni Macky Sall toog ci nguur gi des ci nguur gi jaral na ko lu ne lii mooy li ci gën a tuuti jaral na ko sax li nga xam ne ndax Sénégal ñun mosuñu woon am or wala pétrole wala gaz wala yu demee noonu waaye amoon nañ loo xam ne àdduna yépp ñu ko ñee ñépp mooy li tubaab di wax cohésion sociale mooy Sénégal ñun ñëpp dañoo bokk ndey bokk bàyyi Sénégal mosuñoo xam waaso wala xaw ma lan fii soo fi jëloo ñu nekk ci salle bi boo moytul 80 pour cent yi kay seen jabar wala kay seen jëkkal bokkuñu waaso ñun mosuñoo xam loolu Macky Sall bi mu toogee fii ba léegi la fi coow waaso am ba keroog ndaw yi ñu jàpp ci suñuy manifestation te suñu constitution suñu charte ndeyu réew mi suñu ndeyu charte réew mi tere na loolu tere na ngay wax nit di wax ci waasoom wala ci diineem wala ci euh, gox gi mu dëkk parce que loolu day day day day nërmal li ñu bokk ñun ñëpp muy nation mais keroog bi ñu jàppee xale yi ñi leen doon enquête laaj bi ñu leen njëkk a laaj mooy ban xeet nga bokk ñaareel bi mooy ban région nga jóge loolu lu dangereux lu garaaw la cim réew taal na Rwanda taal na feneen ak keneen loolu waruñu ko nangul Macky Sall ba tax may fàttali sénégalais yi ñun ñun ñii ñëpp nag koo ci jël ku toppoon deretam sori tuuti am na ci wolof ci biir deretam am na ci séeréer am na ci pël am na ci alpulaar am na ci joolaa am na ci soninke am na ci mankaañ am na ci leneen ak leneen ñun ñëpp sénégalais lañu yàlla ñu tànnal réew mi ñu war a bëggante jàppante bu ñu nangu Macky Sall dugal ñu ci loolu. te suñuy police ak ñoom seen waruñu nangu ñu leen jox instruction yu mel noonu li ñuy wax fichage ethnique waruñu koo nangu may wax nag ni ñun de ci suñu jëpp bopp yàlla ma may man ci sama bopp suñuy wax métis ci Sénégal man métis la am ca xombal am ca pal am ca fuuta am ca Casamance am ca Sine am feneen ak feneen ñun loolu mooy Sénégal may wax nag ngeen may ma ma wax tuuti ci biirum Casamance parce que bi ma duggee ci politique ba léegi ñii ma jàmmaar lool kenn mësut a gis acteur politique jamono ñoom Lamine Gueye ba tey mësuñoo gis ku dugg ci politique ñu jël sa waaso wala sa région bi nga dëkk def ko argument politique di wër nit ñi naan ñii nii la ñu mel ñii nii lañu ñu mel damay wax ni Casamance dafa xew ñun ñëpp la naqari ñeent futi fukki at a ngi nii jàmm amul guerre bàyyiwul ñun ñëpp la naqari te ñi ci gën a perte nag mooy waa Casamance ñoo ci njëkk a perte parce que mënuñu liggéey mënuñu defar économie mënuñu defar leneen ak leneen ñay jàmmaarloo Casamance ñoom ñëpp sénégalais lañu kiy ak koy tiire ñoom ñëpp sénégalais lañu kon ñun dañoo teel a wax leeral ko ma bindoon ko ci sama téere waxaat ko ci campagne bi. ni ñun dañu dul d'accord benn yoon mu am benn pàcc pàccloo bu ñuy defaat fii ci biir Sénégal ndax suñu réew yi nga xam ne tubaab bi buy dem bañ ñu am doole moo tax mu jël suñuy réew dagg ko ba ñu doon ay réew yu ndaw kenn amu ci doole pour mën a dem réew yooyu lan lañ ciy daggaat keroog Soudan bi nga xam ne xeex nañu ba am indépendance fan la mujj ñoom ñi ngi xeex seen biir kon li ñu war a def mooy waxuma sax daggaat ay réew waaye nu ñuy def mooy suñu réew yi nu ñuy def ba dajale leen par exemple ci cadre CEDEAO ñu am benn fédération bu mag boo xam ne dina am presque 380 millions d'habitants def 6 millions de kilomètres carrés noonu nga mën a construire une puissance waaye c'est pas 196 kilomètres carrés et 16 millions d'habitants ñun dépassé nañu waxu ay région ak ay ñu ngi wax Afrique ñoom seen gis-gis bu gàtt ñoom ñoo nekk ci loolu kon wax jooju di wax ju rafetul du ñaaw nga xam ne boole woon nañ ko ak yeneen wax yoo xam ne sax euh, ci jë jëmale ko ci tarixa ak leneen leen ñu dem ba Sénégal yi gis ni lii amul waaye su ñu demee ba lii am ñu jël ay xale dinañ laaj ban xeet nga bokk loolu dañ koy dénoncer te wax ko sénégalais ba ñu dégg ko kon sénégalais yëpp lay waxal Macky Sall dafa nekk ci ab yoon yoonam mooy. ñenn ci ñun jàpp nañ ni troisième mandat moo ko tax a jóg déedéet Macky Sall mandat à vie c'est-à-dire toog fi doon buur nekk fi ba mën a tur ba xobi daas jox doomam wala jox keneen ku mu wóolu ko tax a jóg loolu suñu démocratie mënu ko nangu kon ñun ñëpp ñoo war a taxaw parce que fii ñu toll ñi ci Sénégal ay nit dañ cee sonn xeex ci boobu ñun juddooguñu ñeneen di ci xeex di ci xeex di ci xeex ba ñu am niveau démocratie bi ñu am est-ce que war nañoo nangu seetaan tey Macky Sall ñëw faagagal loolu yëpp. loolu mooy enjeu bi enjeu bi du usmaan Sonko ku yaakaar ni Ousmane Sonko mooy enjeu bi da ngay nax sa bopp enjeu bi mooy Macky Sall bu jàllee ci bii pa Sénégalais yëpp dina leen fi duma bëccëg ci mbir kam ku neeti d'accord ak moom xamal ni yaa ngi kaso moo tax ma woo Sénégalais yëpp woo naa jigéen ñi bu leen nangu. da ngeen xeex ba sonn pour am loi yi ñu ngeen am pour ni ñuy dale ci kaw jigéen ñi ni ñu leen di jaaye doole jeex bu leen nangu ñu jël ko politiquer ko woo naa ndaw ñi nga xam ne lott nañu sonn nañu amuñu liggéey ñii ñi ngi dee ci géej gi ñii di dee ci désert bi ñuy wuti feneen lu ñu mënoon am fii seen réew may wax ndaw ñooñu ni xeex bii seen xeex la parce que lii ñuy def suñ ko réussir ba effacé ko xam leen ni amatu leen avenir fii biir Sénégal benn clan mooy toog noot Sénégalais yi ko wax mu duma la woo naa acteur politique yépp acteur politique gu opposition bi ma wax leen ni Macky Sall lii ñun occasion la waroon doon ñu booloo manko dal di fexe ba wëlbati euh, euh, rapport de force bi parce que suñ ko bàyyee amul kenn koo xam ne di amati jàmm te amul kenn koo xam ne mos na laa xañ sa droit nga yaakaar ne dina la ko delloo jamais de la vie kon ñun dañoo war a profité ci lii booloo jàkkaarloog Macky Sall ba fii lay jóge respecté ñu may wax tamit ñi nga xam ne waa diaspora bi la di ay sénégalais yoo xam ne dañoo bàyyi seen réew bàyyi seen i mbokk dem nangu nekk ay ndoxandeem feneen ngire rek lii nga xam ne échec la ci suñu réew te ñoom seen yorin bu ñaaw moo ko indi ba ndóol nekk fi ba ñàkk nekk fi ba chômage nekk fi ñu dem fortaatu loo xam ne nañ mën a jàppale famille damay wax diaspora boobu yéen yéen a njëkk xam ñun li ñuy wax lu mu doon ba ñu commencé politique yéen a ñu njëkk a comprendre yéen njëkk a ñëw bokk ci li ñuy def yéen a njëkk a ñëw dajale seen xaalis yi da ngeen ciy dugal kon xam leen ni xeex boobu ñu doon xeex dafa fekk mu am lu mu dox ba jege fi ñu war a jëm moo tax Macky Sall tiit moom ak ay ñoñam ba ne tey il faut ma arrêté ko xeex bi seen xeex la yéen waa diaspora du xeexu waa Sénégal rek waaye seen xeex la yéen it waa diaspora di wax mouvement citoyen gàcce ngaalaama ndax yàgg ngeen ci xeex bi te mosu leen ci ut dara ndax yéen jógu leen pour nguur waaye xeex bi tey lay door bu ñu jàpp ni xeexoon nañu 23 juin ak leneen ak leneen léegi nag ñëpp nañu wàccee loxo yi déedéet. xeex bi tey lay door te li ñuy xeex tey dootul ab projet de loi bu ñu d'accord waaye li ñuy xeex tey mooy fexe ba jël départ boo xam ne fa la Sénégal.